déglul ma wax jigéen ja bon te mooy jigéen ju mën a ñaan ëppal rambax boole kañaan matul jabar dalay lëjal jigéen ju dul julli du woor mënta defar kafe gu foor baat ba di riir mu mel ni góor matul jabar dalay lëjal kuy dox itam di wax ca suuf lum togg mën ni ko fuuf mbaa bu tëddee di wax lu soof soo ko takkee am gaw gàngal ku reew reew xolam ba bon làmmiñ wa ñaaw mu mën a fen sàggante kii rekk a bon fu la wut si yow mi dawal jigéen ju ñaaw te mën a jëw jikko ja ñaaw te bët ya sew mu mën a tooñ te gaaw a bew foog a gisit nang ko xajal ku gaaw a mer am doole lool te gaaw a dóor te nekku njool boo wóoluwul sa bopp lool bàyyil mu dem fu mu toog jógal jugóon judul fot du bale te am fitu xëy darale koñ bi bépp xuloo kile soo ko takkee loo gis muñal jigéen ju dul togg du toog te lu mu wax ñépp ni tuug nga di ko gis foo mas la foog ci ab safaan bum la xamal jigéen bu dee juy gaaw a wax te mënta waxit wax ju neex bari jikko yu ñuul ak a weex kun ko sëla xam ngaw gàngal ku taaru lool te doyluwul ku ñàkk jom te maanuwul murite lool te yewuwul loo bëgg-bëgg it bul ko jël yonente bi nee na nu woon jigéen ju taaru lool te bon gàncax la rekk gu sax ci sën naat na de waaye meññalul yow miy jigéen déglu ma ma wax la góor gu jarawut na dib jullit te amu fit mana la yoo mat naa sëyal góor gu la yor te lay muñal bu la gisee di la xelal bëgg la lool man laa defal bu la mayee gura yeyal bul xool alal ba jaay sa ngor bul gaaw a gëm nit dana wor seetal ku baax kuy bañ a wor te bañ a teg sa bët ci alal saabu alal te nga sëy dees na la kat yaa ko tey lii nag sëful jigéenu tey ndax li ñu gëm moo di alal saaboo bëggee ew doom ju baax négal ba gis askan wu baax nga dem fa sëy fa sëy bu baax moom dina ñëw yàllaay dogal kuy dóor di xas lum mën a yor yow bul ko xool sàmmal sa ngor ku rëy te reew ku mën a yor day xëy bis rek toroxal kuy màndi yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw koo xam ni dóor rek ca la gaaw ñi ñépp bul ca dem ngir alal moyul ma waaju bañ liggéey tayel ba mel ni waaju géey fu mu naa aw ma liggéey ku mel ni kiit bu ma la jël boo munta muñ lu yàgg yow kër moodu moodu bul fa aw boo fa sëyee dawal ba raw bul taxawaalu yow muñal carno mbay yow mi taxawal waxtaan wi fees na ci sa xol góor ak jigéen ko mu ci dawal lii ma la wax moo lay musa